Bon, bon, déjà, nous tenons vraiment, nu sommes vraiment contents d'être ici, d'être sur table avec monsieur le maire. C'est déjà benn benn benn benn faveur la pour ñun ñëpp. Voilà, di la remercier, di remercier ta jeune parce que sonal sonal nañ ko xam naa ni ñu koy sonalee noonu la lay sonalee parce que d'habitude ñun dañ daan dem ci moom di ko solliciter cette fois si peut-être moom moo ñu mettre en rapport avec yow te dañ koy remercier vraiment di remercier di ñu fi toog ñëpp. Euh, avant avant de procéder à quelque chose di la comme on n'avait pas le temps on n'avait pas l'occasion aussi ñu toog remercier la euh, féliciter la si si si si ndam li euh, di la souhaiter courage le bon travail le chemin yi xam naa ne yombul mais peut-être di nga ko gérer parce que ñun ñii rek déjà avec peut-être cent cent cinq cent personnes rek dañuy am problème pour gérer waxuma la tout une localité boo xamante ne dëgg waay y a tous les problèmes du monde sollicitation yi dina bari mais bon n'empêche que ñun ci Guédiawaye lañ bokk bu ñu amee occasion sollicité la dinañ la sollicité voilà léegi looloo nekkoon suñu kii di di remercier aussi de de passage peut-être nekku fi parce que ñun hiérarchie la ñuy topp suñu curé moom bu ñuy bu ñuy dem fenn dañuy yebal suñu aumônier dañuy yebal donc nu sommes venus par rapport ak hiérarchie bi ñu toog fii nii tey mën a wax donc ñun bu ñu jëlee parole day mel ni ñoom ñoo ñu waxal voilà léegi nag bon peut-être gis nañ gis nañ looyi bëri na kontaan nañ trop si si si si si bi nga def voilà seetaan nañ si ay t-shirt la ak euh, ak ndox voilà ñu ñoo fi toog tey mais dafa mel ni jeunes yëpp a fi toog xam naa ne buñ naroon ñëw cinq cent marcheurs bu ñu naroon dugg si fii xam naa ne dañuy loué stade bi pour mun fa nekk dalal ñu mais comme ñu ñoo fi nekk voilà dañuy remercier aussi madame Ndongo sonal naa ko trop si ay appel comme ni nga wax tout le temps moo woo ko ñëw naa fi sax mu na ma demal dinaa la woo voilà tout temps dañ koy mais lépp nag c' est juste que parce que dañoo dañu yóndi tey ñu ñoo tey ñu ñoo diriger suba sama merom dina diriger keneen ak keneen comme tey ñu ñoo am occasion jàkkaarloo yow te comprendre naa d' après ni ñuy waxee ni xëy na peut-être euh, méthode bi ñuy doxee wala méthode bi ñuy demandé et tout ça peut-être xëy na comprendre goo ko mais les années qui qui vont venir peut-être di nga ko comprendre sànq maa ngi doon wax ci marché bi ñuy wax protocole de de de ñuy déparé di la remercier si loolu noonu si acte bu noble la voilà di la wax ni nag tamit peut-être peut-être cette fois-ci c'est la marche mooy cause bu ñu tax ñu toog fii mais am na yeneen cause yoo xamante ne bëri na voilà bu yeneen cause yoo xam ne bëri na la paroisse e la les jeunes sont la n'hésitez pas à nous solliciter comme nous leen ni solliciter booy amee quelque chose des forums wala des des activités dans la mairie n'hésitez pas nous sommes la les portes son ouvertes la mairie suñu suñu curé yi fii suñu euh, aumônier yi fii boo leen jaaree foofu ñoom la ñu digal rek voilà n'empêche qu'on est des chrétiens mais on est aussi des jeunes on fait partie de la mairie bu ñu amee tamit ñun suñu sollicitation hormis les les jeunes catholiques dinañ ñëw wala parce que c'est la mairie di ñaan nga jàppale ñu bu baax baax a baax a baax avec tous les jeunes voilà ñun tamit dinañ la prêter main forte suñu jàppale voilà waaw si campagne bi et tout ça voilà euh, merci quand merci fi tey ci mairie Guédiawaye avec les jeunes de des deux paroisses Saint-Jean-Paul II le maire Ahmed Aïdara a offert 500 t-shirts et casquettes pour Saint-Jean-Paul II et 500 et casquettes pour euh, euh, Saint-Abraham ainsi que des et 500 bouteilles d'eau pour chaque paroisse et aussi une enveloppe de 500 000 francs. di remercier opportunité bi ngeen ñu may en tant que jeune en tant que euh, euh, citoyen de la ville de Guédiawaye ci kaw loolu ñun ay ndaw lañ yu ñu yebal di représenté église di représenter diine ci fànn boobu ñun lu ñuy njëkk a magnifier mooy euh, l'esprit familial propre à la personne de son manager loolu la ñuy njëkk rafetlu ñun loolu la ñuy jooy souvent parce que booy nekkee ci benn bërëb ki koy administré yëg la am fu la teg di la nemmeeku saay su nekk di wo euh, def ay euh, say say préoccupation ay préoccupation donc loolu la ñu soxla te dañ koy rafetlu saay su nekk di ñaan yàlla mu saxal loolu mu gën kaa dooleel ci liggéey bi parce que bu doxee suñu suñu avancement la ñun kon loolu en tant que collaborateur Euh, de l'équipe euh, municipale ñun dañuy taxaw ci loolu ñu nekk ñu fi pour euh, benn naan dañuy contre qui que ce soit mais dañuy nekk pour liggéeyal géejawaay te moom loolu la ñu woo ci cadre boobu dañ ko ci wuyu si ba mu neex ci wuyu si boobu nag en tant que collaborateur dañuy def ci war fii ci cadre marché bi ñun tey dañ ko ñëw di suñu mbébét mu def ko soxlaam def ci li ci war ba mu sut suñu njort mu ngi naan xeeb na ko mais ñun gis nañ ko ci fànn bu kawe parce que c'est la première fois man euh, en tant que mm, coordinateur des jeunes de la paroisse ma am euh, benn affinité benn benn ouverture boo xam ne que accordé nañ ma ko euh, pour ma mën a waxtaan ak sama maire pour mën ko diis samay soxla mën ko diis soxla jeunes chrétiens yi jeunes catholiques yi en en grosso ci loolu dañ koy rafetlu di ñaan yàlla mu gën a barkeel liggéey bi gën a woyofal liggéey bi ba lépp loo leen euh, namm pour Guédiawaye ngeen am lu sut seen njort moo ngi leen di remercier merci beaucoup